voilà il est là ki nekkul président taxawal du président bi voilà président yi la chef mën nañu ñëw. non non taxawal ah d'accord c'est bon merci ok c'est bon. président yi la. moo fi sëñ Touba waxal li nga bëgg boo demee moo fi sëñ Touba yal na la yàlla defal jàmm. jàmm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 président mi ngi noonu tamit photo bi voilà président Diomaye mi ngi noonu fi bàyyi ko wut leen oto yi attention duñ maye dara